rawatina bokki taalibe yi rawatina nag ñi suñu borom baaxee ñu am tawféex yi dëkk Touba noo ngi nuyu noo ngi nuyu ñëpp euh, ci turu suñu kilifa Cheikh Mouhamadou Lamine euh, di leen fàttali euh, liggéey bu rëy boo xam ne Cheikh Salihu moo ko doon def ci yitteem ju rëy yéeneem ju sell parce que bu bu wér bu dëgër ci la ko xalaate woon muy liggéey bu rëy jëme ko ci alxuraan lam ca fas moom xëy na dañ ci mën a am luñ ca xam rek waaye la ca des moo borom moo boromam rek noo ko xam ak Sëriñ Tuubaa mi mu doon liggéeyal eh, waaye xam nañ ne dam eh, ca fas eh, mën na noo defaral suñ lépp mën na noo def mën naa defaral jullit yi yëpp seen i mbir rawatina ñëwatu boppam lii kon loolu moom la ñuy fàttali ci ndigal Cheikh Mouhamadou Lamine ci turu nag ñi nga xam ne ñoom lañ ko doon ñoom la ko doon defloo euh, muy euh, sëriñ Bachirou mu Cheikh Mahamadul Fadil euh, ak sëriñ Bachirou mu Cheikhul Habib ñooñu ñoom la ko doon liggéeyloo ak ñi ko doon àndal ku mel ne sëriñ Qaadi Jaxate ak ñi ñu ko doon àndal ñuy nit ñoo xam ne takku lañu ñu pësteefu lañu ñu am yitte lañu ñu bëgg alxuraan lañu bëgg ñu bëgg lu baax lañu ñooñu la ko doon liggéeyloo ñu def ca seen taxawaay bu ma sëkk daa ko defal na mu ko bëggee eh, bi mu liggéeyee na mu war a liggéeyee eh, ba fekki eh, ba fekki ki mu doon liggéeyal mu Cheikh Ahmadul Xadim suñ lépp ñoom ñi nga xam ne ñoom la ko doon liggéeyloo ñu ñu ñu ñu ñu ñu jógaat ak euh, gën a gën a taxaw bëgg a gën a taxaw nañu taxe woon ci teewub Cheikh Saliou euh, wax wax waxtaan ak Cheikh Mahmoud Lamine euh, na ko sëñ Saliou jàppe woon na mu ko daan defee na mu leen ko digale woon Cheikh Mahmoud Lamine fa tabaarakallahu mu ànd ci ak ñoom yeesal leen digal la Euh, euh, euh, loolu nag moom la ñuy bëgg fàttali ñi nga xam ne xamoon nañ ko di ko xamal ñi nga xam ne xamuñu ko woon muy nag ñëpp ñu jóg ci jëm ci liggéey boobu topp ci ñi nga xam ne ñoom la ko Cheikh Salihu daa def loo nañ ko tërale nu ànd ci ak ñoom nun ñëpp nag nun ñëpp am na lu ma ci kàddu yu ma ci jox waxoon ci bisu poroxaan ba jotli woon naa ko ñëpp am jullit yëpp euh, bokki taalibe yëpp euh, bokki dëkkandoo yi nga xam ne ñoo am tawfeex dëkki Tuubaa euh, ñooñu yeesaloon naa kàddu yi foofu ci Poroxaan kon nag maa ngi koy dolli di ko gën a yeesal di ko gën a xamle bokk yëpp bokk jullit yëpp bokki taalibe yëpp ñëpp nañ maasa jóg ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom la ko Cheikh Saliou doon liggéeyloo ñu ñu jóg taxaw ci taxawaay boo xam ne yéesul benn taxawaay ñëpp kon nañ jóg ànd ci ak ànd ak ñoom jëm ci yitte jooju def ci suñu kem kàttan yi sellal sell gën caa sellal sunu yéene gën caa wéral suñuy pësteef gën caa yokk suñu yitte ànd ci ak ñoom nañ koy ànd nag nañ koy defee nag moo di rek fépp barab yëpp barab fi penc yëpp fu fi foofu nekk fu fi ja jumaa nekk fu fi penc nekk ni ko Cheikh Makhtar waxee foo xam na penc moo xam ne mbaar sax nga fa euh, nañu nañu ko na altine jii ni yow euh, na ñëpp jóg na ñëpp jóg euh, jëm ci jë jóg xam ne ci alxuraan lañ jëm fas yéene caa liggéeyal sëriñ bi fas yéene ci itam sàkkuwaale ci ñaan julli yëpp jëriñu ci raw waxuma la rawat na Sénégal rawat na nag bokki taalibe yi nañ ci fas eh, bu baax a baax a baax eh, ñaan gannaaw liggéey fa yéene ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba noppi nañ ci nañ ci nañ ci fas ñaan ci suñu borom dolli gën a sàmm réew mi sàmm na ko naam moom sant rek nu war ndax fa tabaarakallaahu loolu lépp ku xam xam nga teg nga ci sa bët réew mi fa tabaarakallaahu eh, kenn nattabliwul ne am na lu ci dugg sàmm suñ borom dugg na ci bu wér a wér a wér a euh, dugg na ci bu wér lépp nag ci euh, barkeb sëriñ bi euh, ak ñu baax ñi nga xam ne ñoom la jamonoon teeloon loolu ku ne xam na jeexit ji nga xam ne feeñ na ci senegal waaye nag dara weesu wu ci nag seen taxawaay ci diine rawatina taxaw Serigne Touba ci alquran ku ne xam na gannaaw boromam gannaaw yonent mi mu doon liggéeyal alquran lépp lépp xamem teefa mag mbëggeel mag fonkeel mag yittee mag lépp def na ko ci alquran ñi ñi ñi jamono ñi ko ñi ko gis xam nañ ne fa mu teg alquran mu ne su wax ne kenn teg fa waaye fa mu ko fa mu ko teg kenn weesu ko fa gannaaw gannaaw boromam mi nga xam ne mooy borom alquran wàcc ko yonent bi euh, xam nañ ne fa mu teg alxuraan euh, kenn kenn mënu ko faa weesu kenn mënu ko kenn mënu koo weesu loolu nag muy loo xam ne alhamdulilahi rabbil alamin war na noo mën a doy ndoonu sëkk ndoonu lim nu bàyyeel jaatu euh, na loolu rëy na lool waaye alxuraan na ci jiitu kon nag loolu war na noo doy doon doonu sëkk ñu jàpp ci doyloo ko doyloo xol doyloo xel eh, doyloo gu wér wér wér xam ne suñ lépp mën na cee defaro suñ lépp mën na cee defaroo waaxeer waxtu lépp mën na cee defaroo kon nu jug jëmaat ci alxuraan eh, fas yéene ci liggéey Sëriñ Tuubaa eh, di ci sàkkuwaale itam ñaan suñu diggante suñu borom ci barkeb Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom rek lañ am moom la soxla moom lañ moom lañ soxla woon am tey moom lañ soxla am ëllëg ñaan nag jug ci alxuraan ñaan ci barkeb sëriñ bi euh, suñu borom euh, euh, xettali jullit yépp waxuma la ëllëg waaye mu xett leen ci ci àdduna ji rawatina ci nga xam ne ñi ngi ci ay xat-xat yu metti muy ay réew yoo xam ne réew jullit lañu ñu ngi ci ay xat yu metti yoo xam ne yëfar yi ñu nekkal sonal nañ leen lool xatal metti ñu ngi leen di mettital tiis mu ne am ma nga ciy am fasaale ñooñu yàlla xettali leen delloo li seen seen sago delloo li seen seen bopp ba ñu mën a dund ni ñëpp di dunde waaw ñaan nag euh, julli ñaanal julli yëpp ñëpp suñu borom euh, gën leen a dimbali bañ mën a gën a jëm ci seen borom euh, gën a mën a jëfe seen digal muy jàmm yàlla jaamu rek jaamu yàlla rek noo fi indi suñu borom danoo bind noo def jaamu andi nu fi di nu jaamaloo jaamu gi rek moo fi suñu warteef li ci lépp lépp moo nu ko warlu kon nañu góorgóorlu bu baax jugaat nag ci alxuraan def ci suñu lépp ñaan nag noonu moo ko waxee woon rek bu baax a baax a baax ñaan jullit yi yëpp xettali ko rawatina ñi nga xam ne ñoo ngi ci ay xat ak tis tis Palestine moo ci jiitu ñaan nag senegal gi nga xam ne moom la dëkk nag gannaaw ban santee ba gis li nu li nu fi suñu borom defal ci barkib sëriñ bi ban sant bu nu santee ba noppi nu doole ñaan nag gën doole gën a gën noo doole sàmm gën noo doole dimbali gën noo doole musal gën na doole dimbali ban ba ban bën ban ban gën a ami xéewal euh, yoo xam ne euh, daan ko mën a jë daan daan ko jëriñoo